salaam. salaay salaam ak bari bari. salaay salaay Salah amul Dominique Toretto. gardien numéro un baa ngi nii yow yaa mel ni firaw na tey nga dee ana Sara. da ngeen dee de Sara kaay. Sara. Sara tey nga dee de. Sara Sara kii di yow kii di ñun. Sara kii di yow kii di ñun tey nga dee de. amul Sara amul dara. yéen nii Carlos Queiroz. el na nii. el na nii el na nii Zemal. Zemal fokk yu el na nii. Yeah, Zamal, fuck you. Zamal, Zamal, fuck you, Salah. Woo! Fuck you.